yàgg sa mbokk yu tedd yu sell yi nga àndal liggéey bi yëpp ñu am ci ay xarit ay sëriñ waaye ay mag suñu diggante yàgg lool ñu ñëwoon fii tey ànd ak le ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la protection civile et de la sécurité de proximité Birame Faye ànd ak gouverneuru Ndiarème directeur général de l'administration territoriale directeur général de la Sénélec Pape bi tey ak force de défense et de sécurité yi général Ndoye colonel Diop DSP directeur de la sécurité publique le colonel Campbell bi représenté force armées waa OFOR ak mbooleem service su état yi nga xam ni seen loxo dafa war a tàbbi jëm ci liggéey bi suñu ñëw tey fii nag dafa bawoo ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky mu wax ñu ni liggéey bi ngeen tàmbale woon le 6 juin ca Ndam woyal ko le 22 juin ca Mbacké le 12 juillet ñu woyal ko toujours ca Diourbel ba ca le 8 août fee ca ministère de l'intérieur te lépp doon ci waajtaayu màggal gi ñu bokk liggéey bi ak comité d'organisation bi ci njiitalul Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre mu ni ñu na dem xool fu liggéey bi toll xool lu ca jara yokk ci taxawaay ngeen yokk ko laaj leen bokk ko ànd ak ñoom ngir màggal gi ñu dëgmal suñu boroom defal ñu ci taw féexuk mu nekk ci màggal yi nga xam ni ci wàllu organisation ak Euh, tawféex gu bari dina ci dugg gu kawe suñu njort bi ñuy ñëw it mu wax ñu ni nañu jël nuyoo yi gën a kawe nuyoo yi gën a sell ak nuyoo yi gën a tedd di ko ngir joxal ko ko waajuram xaritam soppeem sëriñam di sëriñ Cheikh Mountakha Bachir Mbacké diggam ak sëriñ Cheikh Mountakha moom président de la république son excellence Macky Sall ku ne xam na ko ku ne xam na diggante bi nu mu demee ci taxawu ci cofeel waaye ci jàppandal ci wàllu lépp loo xam ni soxal na Touba waaye tamit soxal na réew mi kon ñu ngi yëkkati ziara président de la république son excellence Macky Sall di ko teg ci sa loxo sëriñ bi di la ñaan nga jot lil ñu sëriñ Cheikh Mountakha nuyoo ziyaara yu président de la république son excellence Macky Sall waaye tamit mbooleem membre gouvernement bi te le premier ministre Amadou Ba nekk ci bopp bi bi ñu tàmbalee liggéey bi ànd nañ ceeg xel mu dal waaye ànd nañ ci tamit ak xol bu féex ndaxte ñi nekk ci service su état bi yëpp jotoon ndigal yu bàyyeekoo ci président de la république xamoon nañ ni duñ leen bàyyi mukk lu dul ni taxawaay ak yitte bi ci war yépp dinañ ko ci def ndax loolu la leen président sant ñoom it ñu doon ñu ci sawar lool defee ko ak yéene ñu jox leen ndigal ngir ñu wéyal ko waaye ñu defe ko ak yéene ren nag màggal gi ñuy dëgmal nekk ci nawet daaw nekkoon na ci nawet waaye ren it dafa nekk ci nawet te ku wax màggal gu tombe ak nawet dinga xam ni li ci gën a indi euh, njaqare léeg-léeg mooy dem dikk bi te li koy waral mooy yoon yu dagg xañ na wala ndox mu nangu ay kër walla ndox mu nangu ay yoon loolu nag naka jekk dafay ñëw par li tubaab di wax par cycle dafay am jamono boo xam ni dañuy toog ba ci yàgg bu ñu nattee weeru olof yi ni ñuy doxee dañuy gis day dem ba ci yàgg mu wëlbatikuwaat ba am lu mu dëppool ci benn jamono maa ngi fàttaliku bi ñu gënee nekk tuut tànk ñëw nañ màggal si fii ba tey xuus dugg ci jumaa ji wala bu ñu nekkee ci biir oto yi wala ci kaw oto yi dañuy tawte ba yegsi loolu di dem di dem ba màggal gi génn nawet bi sans borom di dogal ci dogalam yi ñuy dox di dox di dox ba duggaat ci nawet bi mu doon loo xam ni dafa aajo woon waajtaay président xamoon ko def ay programme yu bëri fii di ci assainissement wu Touba léegi rek Pedre si di directeur u exploitation ONAS fàttali na bi président di ñëw premier programme bi mu tëral fii jële jëmale ko ci assainissement ak njeexital bi mu am ci biir dëkk bi ndax xañ na dëkk bi li wër jumaa ji wala yenn gox yi yu bëri daana am inondation ndox mi di nangu yenn bërëb yeeg yenn kër yi te loolu yàlla def na ci feex ba jeex na waaye liggéey la bu dul taxaw bu ñu demee ci première phase bi dañuy dem ci deuxième phase bi xañ na deuxième phase bi sax buñ ci jàllee dina dem ci troisième phase bi ndax ni Touba di màggee ku xamoon Touba ci jamono même su dee say at bëriwul di nga gis ni màggal gi daanaka li waroon jumaa ji la jëm vingt 28 damay faral léeg-léeg di fàttali ni boo daan dem rek gédé day day jige jumaa ji dem gédé boo jëlul charrette day mel ni da ngay tukki boo daan jóge fii ci jumaa ji tamit di dem Madiana kooku moom tukki bu sore sore la doon doon ci yow nga xam ni xañ na léegi la euh, Touba màgg ba quartier boo ci jël day mel ni mooy xolu tuubaa keroog maa ngi koy fàttali ci benn waxtaan bu ma doon am ni ba ñuy sanc fële ca héliport dañu daan wax xanaa yéen da ngeen a bëgg nekk ci àll bi di màggal ñun sama benn xarit di wax ni ma nañ kaaleen ñu dem ca nit ña dëkk bi nag su màggee ba tollu foofu état bi xam ko ànd ci ak euh, sëriñ bi ci wàllu accompagnement assainissement bi ala kulli at yi ñu jëm dañuy gën a soxla taxawu ci fànn yëpp électricité bi dañ koy gën a soxla boo jëlee wàllu goudron bi génie civil dañ koy gën a soxla li sëriñ bi di faral di wax rek mbubb moo ko nattal ren bu déwénee mu cëkk ko kon màggug Tuuba mooy demee noonu maa ngi fàttali lu yàgg la loolu euh, ci euh, benn sommet bu amoon Istanbul su ma juumul sëñ Moustapha Saliou moo fa teewaloon euh, Touba teewal fa Sénégal fekk boobu ñuy xool yan modèle la ñu mën a jël ci développement wu dëkk ni mu gaawee ñu gis ni màggug tuuba amul lenn luñ ko mën a méngaleel kon loolu état bi euh, xam na ko di gàttandu li war a am yépp ci investissement ba moo tax dernier programme bi président tëral mu toll ci ñaar fukki milliards ak lu topp jëmale ko ci assainissement bi te loolu it xam naa ne buñ ci jógee dina am yeneen yoo xam ni da koy dal di war ndax euh, ni dëkk bi di màggee ak ni nit ñi di gàddaayee di ganesi sëriñ bi fas yéene dëkk ak moom dafa am euh, loolu xam naa ci lay daanelee bala may ñëwaat tuuti ci euh, fi ñu toll ci liggéey bi benn euh, greffier bu ma xamoon ñuy bokk di liggéey loolu yàgg na war na mat ay ñaar fukki at ma gis ni dafa am menn at seen waa dëkk ñoom ñëpp toxu si ñëw tuuba bi ñu ñëwee indaale seen ay néeg indaale seen ay charrette indaale seen ay lal ñëw rek dëkk ci sancaan yi fekk seen maam mooy borom dëkk bi ñu ñëw ci seen maam ni ko waaw ñun fii la suñu ay tool nekk fii la suñu ay jumtukaay nekk fii la ñu xamoon a liggéey te fii lañu amoon ay teen lan moo waral ñu toog ñun ñëpp rek ba beeku ñëw tuuba dëkk fi maamam di ko xool ba ci ni ko sagar day jege ab sën ginnaaw xolub murit boo ubbi boo ko seetee li ca nekk mooy guddi guddi bu ko saa borom moomee mu fanaan si Touba teel a jege si day yombal rek mbir mi nga xam ni loolu euh, même mag ñu baax ñi àndoon ak sëriñ bi yaakaar naa am na benn histoire bu ma ci xam euh, su ma juumul sëñ Maxtaar Binta Lo la waaw Cheikh Maxtaar Binta Lo fële ca euh, dëkk bi nu mu tuddati waay ñoom re ca ñoom re ñoom rek yi ñuy tuddee léegi ñoom rek bay jili ñoom rek bay taala noonu lañ ko tuddee léegi ñoom rek bay taala noonu lañ tuddee dëkk bi waaye ñu ngi ciy nettali xisa bu yéeme bi sëñ Maxtaar Bintaloo làqoo nga xam ni ku nekk ci murit yi loola fas yéene def ba tax na xam nga ko président xam moo tax saa yu nekk muy soññ ci liggéey bi bi ñu ñëwee nag tey xayma ko gis nañ ni lépp lu ci service su état bi jëloon comme engagement toll nañ ci quatre-vingt-douze pour cent de réalisation loolu nag mën naa dal xel te li ci desit incha allahu rabbi gouverneur dina ko topp ba keroog ñu yegg ci màggal gi li war a taxaw li waral taxawaayu état tamit bu ñu weesoo màggal gi ñu taxawee ko nañ ko war a taxawee incha allahu rabbi li ci yokk mooy gis nañ ONAS liggéey bi mu ci def waaye gis nañ ci wàllu ndox mi wax naa ko léegi forage yi nekk ci biir Touba toll ci fanweer ak juróom-ñaar OFOR leeral na léegi nii yépp ñu ngi en service si citernes yi dinañ ñëw waaye ren daf ci am benn addiya particulier boo xam ni président de la république son excellence Macky Sall moo ko indil boppam ngir mën a fexe ba ndox bañ a manqué moo tax mu jël ñaar fukki camion citerne bu ci nekk di def trente mille litres boo leen boolee bu ñu taxawee ci saasi rek six cent mille litres la boo leen yóbboo ñu duy ñëwaat day dal di yokk li mu li nga leen yóbbu ñu dem duy ñëwaat te lim ci jublu mooy fexe ba màggal gi nga xam ni ku ni màggal di ndox bisub cant la bisub bernde la waaye day aajowoo ndox ngir jëfandikoo loolu mooy li mu ni woon nañ ko ñëw indi jébbal ko Serigne Cheikh bas mu jébbalal ko Serigne Cheikh Mountakha ngir ñu liggéey ci euh, màggal gi ba lépp luñ ci yéene ñu am ko ci loolu daal mooy li ma amoon ci ay kàddu di sant service u état bi yëpp directeur généraux yi fi teew force de défense et de sécurité yi fi teew di leen wax ni contexte bi ak jamono yi ñu nekk jamono yi bàyyi xel la ku nekk war nga bàyyi xel sa bopp waaye ku nekk tamit war nga bàyyi xel ñi ngay aar ndaxte ñi ñëw ñëpp ci màggal gi xaj na li leen tax a jóg doonul mbir mi doonul même mbir mi am na ñoo xam ne dañuy ñëw ngir màggal si santale si sëriñ Touba boromam waaye am na ñoo xam ne xaj na leneen leen tax a jóg kon ak lu mu ci mënti doon rek ñoom xam nañ ko waajal nañ ko waaye ma leen di gën a soññiwaat di leen wax ni nañu gën a bàyyi xel kilifa yi waaye nañu gën a bàyyi xel askan wi te nañu gën a bàyyi xel moomeelu kilifa yi ak moomeeli askan wi ak moomeel yi nga xamante ni état bi moom moo ko fi indi loolu moo doon kaddu yi may sant bu baax di gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh في كل شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin an nafar raditu an al mawla wa an xayri xalqihi